حمدا لربي على اللقاء أو أرحام من العوالم ci ndigalu alxalif Mawlana Cheikh Ahmed Tidjani Cheikh Ibrahim Niass xalif général de la Fayda Tidjaniya al imam Cheikh Ahmed Tidjani Ali Cissé imam ratib bu Madina Cheikh Ibrahim Niass Cheikh Mouhamed El Amin Cheikh Ibrahim Niass représentant xalif bi ci Ndakaaru groupement départemental Ansaaru Diin bu Dakar ñoo ànd ak mbégte di leen yëgal anniversaire Maulana Cheikh al Islam Al Hadj Ibrahim Niass ñu jàpp ko ren dimanche le 8 décembre 2019 ci terrain ACAPES bu Parcelles Assainies unité 20 conférence bi nag ki ko fas yéene taxawee di Cheikh Mouhamed El Mahi Seydi Ali Cissé di porte-parole de la Hadra ci teewaayu Cheikh Mouhamed El Amin Cheikh Ibrahim Niass représentant xalif bi ci Ndakaaru Cheikh Mouhamed Mounhamin na Cheikh Ibrahim Niass président fédération Jam'iyatu Ansar Din national dix-huit heures pile conférence bi dal di door ci taxawaayu Cheikh Mouhamadul porte-parole Al-Fayda At-Tijaniyya thème waxtaan bi nag di rôle de la jeunesse dans la société taxawaayu jeunesse bi ci société bi parrain yi nag monsieur Serigne Mbaye Thiam ministre de l'eau et de l'assainissement Seyda Ndeye Khady Diaw bintu Cheikh Ibrahim Niass maam Ousmane Cissé ancien président Ansaruddin Oustaz Omar Bale Ndiaye muqaddam ak Seyda Awa Cissé muqaddama groupement jamiyatu din département bu Dakar ànd ak mbégte di leen ci woo ñu koy amal dimanche le 8 décembre 2019 ca terrain akapes bu Parcelles Assainies unité 20 à partir de 15 heures képp ku ko dégg mooy sa oote bu ko kenn uute